ahousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala sayidina muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala subhanaka laa ilma lana illa maa allamtana innaka anta alalimu alxakim allahuma allimna maa yanfauna wa anfana bima allamtana wa zidna ilman amin ya rabbil alamin mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh maa ngi fii si États-Unis tudd ibrahim siise ibnul imam hasan radiallahu taala anhu di wax si xew-xew bi nga xam ne ne bépp senegale ak foo mënti nekk ak koo mënti doon war ngaa mën a taxaw wax dëgg te yàlla tax si li nga xam ne ne réew mi mu ngi koy doxee di ko deme te réew mi fu mu jëmi fu muy jëmi ëllëg dina métti torop dina jëfe lool dina bari ay yàq dina bëri tamit ay bakkan yu rot balaa ñuy àgg foofu nag war nañ góor góorlu ba nga xam ne dinañ mën a toog waxta yàlla tax dinañ mën a toog tàllal suñ loxo ñaan yàlla te yàlla tax ndax réew Sénégal su baaxee ñun ñëpp la baaxal waaye su yàqoo tamit ñun ñëpp ñoo ci bokk yem gis nee na jamono jii nii xale yaa ngi dugg koso te xale yooyu du dugg koso mun na am ñooñu ñooy yaakaar seen kër yi mun na am ñoom ñooy toppatoo dépasse yi mun na am ñoo fi def leneen ak leneen ak leneen ak leneen ah fekkee ne problème bi nga xam ne ne moom moo tax ñu jël xale yooyu dugal leen ko so sëñ Kara barki démb moom dafa far sax ubbi benn koso boo xam ne ne ñaata nit ñoo fa ko ñaata blessé ñoo fa ko est-ce que sax ay bakkan sax ratut fa kenn topp ko ci dara Aliou Sall xaalis bi nga xam ne ñu ngi koy wax kenn topp ko ci dara xaalis bi nga xam ne du xaalis bu bon bi la xaalis noir bi ñaata nit lañ ci jàpp suñ gouvernement ki nga xam ne moo toog fii moo toog tey ci réew mi moo jut fenn barki démb ay armes yi nga xam ne jàpp nañ ko si biir université université Cheikh Anta Diop te arme yooyu noonu suñ ko toppee kan moo ko fa dugal kilifa kooku tamit kenn topp ko ci dara ah plateau yi ñu ngi siy invité ay borom xam-xam ay imaamak ay nangam ak nangam ay borom xam-xam ku nekk yaa ngi wax waaye mbir yi dafa leer fekkee ne ñun. dañoo wax na ne Sénégal dafay attewoo si laïcité attewoo ci sharia al islam waaye ñi nga xam ne ne kat ñoom ay jullit leen nañ atte si diin al islam xam ne ay laïcité leen nañ jàpp ne ñoom duñ ay jullit jullit dafay atte si sharia dafay attewoo si sharia wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaika humul kafirun képp koo xam ne danga attee Ah, da nga atte beneen atte bu dul lislaam yàlla mën a yow yéefar nga kon lu tax ñi iwite ay ilimaan si biir plateau yi instead nga toog wax ci problème bi wax ci àlli kalla gi nga toog di ñu nettali ay histoire ay Seydina Youssouf jàpp nañ ko fi woon ay hadisu ifk mi nga xam ne ne mooy Seyda Aïcha mi nga xam ne ne moom lañ tuumaaloon ba yàlla wàcce aaya alxuraan setal ko yàlla moo setal yuusufa yàlla moo setal sayda aïcha radiallahu taala anha kenn nekkut fa woon pour setal sayda aïcha moom ak nit kooku rek ñoo fa nekkoon benn nit moo fa nekk amul kenn ku ko mën a setal ku dul yàlla seydinaa yuusufa fu mu nekkoon dafa dem liggéey amul doole yàlla rek moo ko mën a setal waaye Sonko mi nga xam ne ne tey jii nii dañ kaa sosol yàlla daf ñoo may ñin tey jii nii ñu am liberté boo xam ne ne yàlla moo ñu ko jox tubaab yi joxuñu ko tubaab yi moomuñ tubaab yi indiwuñu fi yàlla moo ñu fi indi te suñu fi suñu fi jugee tamit yàlla moo ñu fi jëlee du kenn ku dul rabbul alamina yàlla nag dafa wax ne képp koo xam ne dañoo taxaw ñi toomaal la ñi toomaal la lu lu lu toll nii zina da ngaa war a ut ay da ngaa war a indi ay seede si lislaam laay wax waxuma atte beneen atte ndax beneen atte man intéressé wu ma lislaam lislaam moom moom moom moo ma ñor te mu si lislaam laay waxee tamit tamit mi jàng naa sharia moo tax ma am droit pour wax si njaaloo dafa am àtte boppam ki nga xamee ne tamit dafa taxaw tuumaal nit ngi ne daf dafa dafa tëdd moom te indiwut seede yu mat al bayyinatu ala daa'i wa yaminu ala man ankar loolu la ñu lislaam jàngal والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا loolu dafa leer ñi nga xam ne dañoo jël sosal nit ki lu mel ni njaalo wala lu mënti doon wala viol ak li mu mënti doon xeet xeet yu garaaw yooyu noonu nga xam ne ne mun naa yàq nit yàqal ko avenir am yàq njabootam ci kaw loo xam ne dara leeru ci loolu lislaam santaa santaane wu ko nañ bàyyi di tawree di toog si biir plateau yi instead nga toog wax ci àll gi nga toog di ñu waxal istu ay ay xisas non non non we don't need that xisas histoire yooyu noonu nit ñi mokkal nañ ko waxal li nga xam ne ne moom mooy tax dëgg ji feeñ waaye li nga xam ne mooy tax dëgg ji feeñ kenn du ko laal ngir lan yaa ngi yaa ngi ragal nguur kon da nga demee ba nga xam ne ngaa ragal nguur fexeel nga summi li nga xam ne mooy imaamatu bi wala mooy xam xam-xam yi nga xam ne moom lañ la ràññee si diine ji jël ko nga teg ko ne la nga dem nekk ak ñoom mu jeex tàkk mënoo nekk ak yàlla ba pare nekk nekk ak seytaane munta nekk munta nekk te képp koo xam ne fen fenkat nga da ngaa war a neex kal ba nga xam ne heure bu ñu la laajaatee rek di nga wax même chose même aji saar mi nga xam ne jël neen ko nëbbu ko jant bi wala kenn xamul fu mu nekk di ko practice muy practice ay wax ak lu muy doxee ak lu muy waxee ak lu muy toogee kaw kaw la bés bu toogee dina wax beneen tuuqi doona boo xamee nekkutoon ci xel bi ndax luñ koy jéem a sol la am na loo xamee nit mënu ko nit du machine am na loo xamee tabi'a doomu aadama la doomu aadama tabi'am du nekk nekkul koo xam ne fenkat la tabi'am mooy toujours lu muy lu mu gis wala li nga xam ne mooy dëgg toujours dafay nekk si xel bi moom lay nettali waaye li nga xam ne ne fen la lu si ëpp dafay fàtte te su fàtte dina jéem a créer wax la nga xam ne ne amut loolu moo tax mu du du duud yi di bëri loolu moo tax jumte yi di bëri léeg-léeg wax fii jaar fii nii ñu wax beneen wax jaar fële ndax foofu su demee ba am rek mooy ne fen am na nit ki soo xoolee jëmmam ji rek suy wax rek da nga xam ne kii li muy wax dëgg la du dëgg lu tax ñun nit ku ñuul heure bu ñu jëlee jaase wala ñu jël paaka pour rey sa morom da gis ay naafiq ay ay ay seytaane yoo xam ne doonte xam ne ne yow lu nga lu nga paree def nii du dëgg waaye dinañ si ànd ak yow ngir lan dafa dafa la lu la neex ana ana yàlla ana yenant bi ndax ñi ngi fàttaliku bés dinañ taxaw si si kanami yàlla pour yàlla attañu waaye même Sonko Sonko su demee ba nga xam ne def na naka su dul noonu mais tooñul yi tooñu nit ñi yàlla la tooñ yàlla moo ko wax def def na fekkee na sax def na ko te benn seede amut benn lenn lenn lu wër li wane ne Sonko def na amut depuis bañ commencé cooli ba léegi te Adji Sarr kanaa kanaa moom rek lañ mus a so lañ lañ mus a lañ mus a violé biir senegal ñaata nit la ñuy violé biir Sénégal te amuñ dëgg ñaata nit ñoo dëgg si ñoo tëdd si biir si biir si biir kaso yi ñi tuumaa loo xam ne nag amut ñaata nit la ñaata nit lañ téye seen faayil yi kenn atewu ko ñaata nit la kenn xamulum toll. nañ xam ne nag yàlla moo fi nekk yàlla moo fi nekk mu neex mu naqati yàlla moo fi nekk yàlla mooy régler mbir yi yàlla mooy doxal mbir yi du gouvernement. àddina bi daan na dox gouvernement amut àddina bi dox na saa gouvernement gouvernement dëgg-dëgg bu fi nekk mooy gouvernement rabbul alamina bi lu fi nekk yëpp dafay jeex dafay dem kon ay sos wala ay fen yoo xam ne jël nañ ko di ko nas di ko kompaloo pour teg ko ci kaw benn nit te lu ñuy teg ci biir nit ko noonu mi ngi bugg a taal réew mi nañ jéem a seet intérêt réew mi moo gën ñi jël bu ko taal réew mi si diggante ñaari nit yoo xam ne ne xëy na sax lu ñuy luñ suy wax yëpp daanaka ay kii kii dafay taxaw rafet njortu ak kii dafay taxaw ñaaw njortu loolu rek moo fi nekk waaw rafet njortu ak ñaaw njortu dinañ si taal diggante rafet njortu ak ñaaw njortu dinañ si taal réew réew bu toll nii Sénégal nga ne ay borom xam-xam yaa ngi fa diw nga fa diw diw diw diw diw diw diw nga xam ne loo looy liim si boroom xam-xam yi duñ jeex nga bukkaataal si ay rafet njorto ak ñaaw njortu kii kii la faral kay kay la faral ñu bëgg a taal réew mi si si si si si si si neen si dara ngir benn jigéen nañ delluwaat ci yàlla nañ delluwaat ci yàlla man damaa taxaw di wax en euh, comme en tant que imam la en tant que responsable Etizala en tant que doomi imam Hassan Cissé man si kàddu yooyu laay waxee te am naa kàddu bi wax pour wax nañ bàyyi caaxaan bi nañ nañ bàyyi fomi nañ dellu si yàlla nañ bàyyi di sosante nañ bàyyi di xeexante nañ bàyyi di xeebante nañ rafet njortu si jaamu yàlla yi nañ rafet njortu ci yàlla mu ne xislataani yeneen tu bokk wax mu ne xislataani laysa fawqahuma shay'un min ash-sharri suu danni billahi wa suu danni bi ibadillah wa xislataani laysa fawqahuma shay'un min ash-sharri sorry laysa fawqahuma shay'un min al-khayri xusnu danni billahi wa xusnu danni bi ibadillah ñaari ñaari ñaari mbir a ngi nii wala ñaari jikko yi ngi nii dara gënu kaa màgg lu dul nga rafet njortu ci yàlla nga rafet njortu ci jaami yàlla yi beneen jikko ngi nii dara gënu suufe si jikko ji suufe mooy nga ñaaw njortu ci yàlla ñaaw njortu ci jaam yàlla yi innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna ko ñun ay mbokk leen nañ fexe ñi rafetal mbokk ci ay jullit leen nañ fexe ñi rafetal dund bi jeex na bët bu set nga dégg diw dem na bés dina ñëw tamit ñin ñi dem te yàlla ñu laaj yàlla dina ñu teg nañ delluwaat ci yàlla nañ bàyyi caaxaan mii nii ku nekk taxaw fële di wax loo xam ne maa anzala allahu bihaa min sultaan lu ngay wax ne dara nekku ci dëgg ngir lan lu neex buur moo tax nga ngay wax buur boo munti wax ak ku munti doon buur dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy yàlla al mulku lillah mooy maliki yawmi ddin liman al mulk al mulku lillahi al waxid al qaxaar wa sallallahu wa sallam ala